naan kenn xaalis waruma xam nga lu ma war taxaw Viviane si biir. waaw waaw. dëgg la ndax bu naqaree ma gis ko. Hmm. te kenn du yëg. bu neexee ma gis ko te kenn du la Guèye. sa kër sa takk gi laa fi mos dugg ñaata at man ak yow. la kër man fi soog dugg ci takk. su ma la message nga tontu ma. su ma la ne leen kii la ma ko mel. parce que borom Touba. ni ma comprendre ko bopp bi day fees il bu bees tey waa ji génn. ndeysaan. du jëw. waaw waaw dinaa fekk du wax waxu jàmm. du jaxase te mën na defar diggante. waaw kii moo baax. dëgg la dëgg la. Sénégal dañoo gaaw ci boo jéem nit dara. bu ci teg sa loxo yow day fay déedéet. mun a sekk mi la taxaw ñàkkul fayda de boo ko fekkee Amérique xam ni ñàkkul fayda de te kot Ndeye Gueye ba nit ñi di laata ñëw indi na jamaa parce que yéen bu waason nit naan ndox mu fi nit naan am bu buy tegaloo ñëw yëpp def ko discrétion loolu li sax mun a sekk ma ca mun a sekk ma ca kal man sama wax moo sax parce que dama ko xaw parce que man du mais am na lu am sama diggante ak moom. loolu am la du ñu ànd ak waxkat ñoom. waxkat du leen fréquenté. waxkat du ñu toog ba wax waxu jàmm. waxkat yàlla na xam nga bu ñu toogee lan la ñuy waxtaan. kenn ku nekk noo fexee ba liggéey ba tekki ba tekki. dëgg la ba jëriñ. loolu la nit ku baax loolu lay dégg ci ñoom. yow kam léegi yow kam léegi noonu abi koy ji. bu ñu la fekkee ngay liggéey tam sax dañ laa war a dóor. nit heure buñ ko fekkee muy def dara war nañoo gëstu la tax muy def loola lan la wala déggoo ma yow Franc lu ñu ñaaña ñaanal ñaañaati di gan. ci biir réew mi. kaay ma wax la artiste yow am nga droit bëggante nit am nga droit nit yëg la nga yëg ko. fii damay anniversaire. Ah, def ko jiite de gala mu jóge France ci jour. parce que yéen ci jour bi. ñoom ànd ak soo dugg sa barke alxuraan kii moo géré woon table yëpp. maam Saliou puissant maam Diarra si bopp daal maa ñu toog di waxtaan ma ne ma non faa. kii bay dem boo ko defal ki la fekk si mooy Sidi Amath Ndiaye. Ah, ki la fekk si mooy ñaareel xaru ci jëkkëram. ki la fekk si mooy Yaali Kourou Fall Ndiaye. loolu mi tegaat daal mbokk ndeyu Maguette Ndiaye mbokk ndeyu Ami Ndiaye. waaw waaw waaw yow sa baay mu dellu si woon sama na doo defaraat toog. 过来。 没，我再来一个。 xanaa doo dof Modou Modou <laughs> Shadow gis nga ko kii de mbaa du dof mbaa du dof balaa xew bi di jeex Shadow say répétition bu ma ñëwee répétition fooy répété bu ma ñëwee balaa koy fekk kon tey ji bu ñu làngalee seen bu nduul mu ñëw na da koy indi kanam jox la sa jógu bu waaso te nee na nag ak xeet ak ànd ak yow nag toog ak yow ba bés bi jeex ci dara Yonent bi sallallahu alayhi wa nag jamaa bii mu lay jox ak or bi nee na lépp sa jëmoo ko gën nee na yow ku neex àndal nga ndax doo ànd ak kenn ba am arrière pensée ci moom nee na koo àndal rek jox nga ko kóolute teg nga ko fi nga ko war a def te yéen ñëpp yéenee àndal te artiste nga da way nit ñi di la déglu ci yàlla ak baax mënoon nga leen a jaay leneen waaye nee na defoo ko da ngaa wàcc sa bopp rek ba maase ak ñoom di ànd ak ñoom ñu doon say xarit nag fu ngeen jëm yéenay ànd yéenay yëkkatandoo yéenay doorandoo nee na sa bis bi yàlla na seet buy lii ma yore nag nga ne jamaana nu mu tudd si. daay man. ah. c'est un patrimoine familial. nee na patrimoine familial. nee na daf ko dencaloon. ay da bambi. la ko dencaloon. pour bés buy am jëkkër. moom la koy takk waa jéema biram góor ñu ma njaay li ci xew leen waxat maaloo jee njaay nee na lii nee na ba bëgg sëy naa for ko nee na familial la nee na faa mooy foo mu dentaloo ko Aïda Bambi Sonko Jomaay Jomaay Sonko nee na Aïda Bambi mooy nabu luut. <laughs> oh taxawal noonu tuuti ñu jël ko ndox. dañuy jooy ñoom Ngoone. ba mu wéyoo koo màkk ba ñu wàññi koo kër la ñu jaar ca France. wala nu am ñetti fan saa yoo xëyee lay nee na enveloppe bii la di teg moom ngay jëndee boisson ndax nee na sa xarit la du wàññeenteeg yow du seetanteeg yow lenn nee na yaay xaritam lii sëb la la ko mën a.